tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa ministre Dame Diop mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum tàggat ndaw ñi ak lu soxal wàllum emploi daan nay wax ci biir surnal bi nag li nga xam ne moom mooy taxawaayu gouvernement bu Sénégal ak yitte ji nga xam ne jox nañ ko ndaw ñi ngir nag daal leen di wutal métier moom ministre Dame Diop la xam xamle nee na lu toll si juróom ñett fukki junni yu fekk juróom benn téeméer ci ay ndaw yoo xam ne maanaam formé nañu leen ba tey ci biir journal bi moom Dame Diop 2012 lu toll si juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci ay centre de formation moo fi nekkoon jamono ji lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñeent ci ay centre de formation daat nay am moom ministre Dame Diop ba tey ci biir journal bi daa di wax ne ñoom daal seen yitte seen mission mooy fexe nag ba ndaw ñi daal di am métier ngir nag nga am métier loole nag la waral da ngay am qualification boo xam ne dina tax nag ñu mën laa jël ba tey moom ministre Dame Diop wax na ci jëm nag ci siyaat maanaam salon boobee ñu ko amal juróomi fan jàpp fukki fan ci weeru mars sa jam ñaajo moom ministre bi wax na nag lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay réew yoo xam ne ñoo ngi leen say xaarandi débat bi jëm ci ñetteelu mandat bi la mu xam ne nag nee na jamono jii daal jaadiwul sax ñu si wax ndax solo sa bëriwul lu jëm nag ci programme bi nga xam ne Macky Sall daal na koy teg mu nekk programme bu leer askanu Sénégal am ci yaakaar moom ministre Dame Diop nee na loolee nag moo nekk seen yitte ngir nag jéem a saafara jafe-jafe askan wi observateur mu ñu kër gii di société africaine de raffinage jamono ji ma ngi ci ay jafe-jafe yu méttee métti ndax nag crise moo fa am am na sax ab réunion boo xam ne woote nañ ko nag ci makkaan bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllum énergie observateur na nag maanaam dañoo jekk-jekk daal gisoo benn gab boo xamante ni toll na ci quarante milliards maanaam mu ne mes na mentañ loole nag moo yëngal kër ga enquête yéen a kaay xëy nag dikkal ñu ci magistrat yi nga xamante ni maanaam ñoom nag daan nañuy wax seen naqar ak li nga xam ne moo leen métti rawatina nag buuxante gi ñu nemmeeku ci poste yu bakkane yi ñu daal di gis lu si mel nag parquet bu ndakaaru ak doyen des juges lu jëm nag ci wàllum yàgg ci poste yi loole nag maanaam dafa yàq magistrature bi ñoom nag la ñuy sàkku nag bokk ci lépp daal daal tëddi njaaxaanaay daal di nañ ñi rawatina lu jëm ci carrière magistrat yi yéen a kaay gii de ñu fekk fa Souleymane Teliko mi nga xam ne moo jiite mbootaay gi ëmb magistrat yu Sénégal muy wax nag naqaram ci lu jëm ci rapport corps de a réew mi quotidien mu ñu xamal laan ñu Guy Marius Sagna moom nag lu toll si juróom ñeen fukki guddi daan na koy def ci kaso bi loolee nag moo tax waa Amnesty International ñoom nag demoon daal di koy seeti waaye nag ñoo ngi sàkku nguurug Sénégal bàyyi ko ci ni mu gën a gaawee ñoom waa Amnesty nag li nga xam ne moo leen jaaxal mooy Sénégal nag nit ñi dañuy def loo xam ne seen àq ak seen yelleef moo leen ka may maanaam ñu leen di jàpp di leen làq jant bi libération yéene kaay mu ñu xamal laan ñu Guy Marius Sagna nag moom bëggul benn arrangement ci mbir mi war a nag ay protocole dafa bëgg lépp nag daal di leer nañ ñi ba tey ci biir journal bi mu ñuy xamal lañu nag moom Guy Marius Sagna nee na bu déggee jege ñaale Macky Sall di wax ne maanaam place am mooy sa kaso ba reetaan sax daf koy daal di ndax jamono joo xamante ni waroon nañu ak leeraange ci kuddu si se sport wala poste wala Prodac jamono ñoom ñu nekk fi di mbel mbeli ba pare nag di ngembal alalu askan bi yéen a gi di 24 heures mu ñu xamal salon international de l' bi nga xam sàkk ñu daal di koy libéré libéré Guy Marius Sagna yi mel ni tulleeg màlle mujj nag ab jàppante daal fay ama journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu njaw ma ngay wéy di desu xambin ci lu jëm nag ci wàllum njàng meeg njàngale mi ndax mbootaay gii di G7 ba léegi ni daal nguur gi daf leen a dumóoyu te ñoom nag seenu xeex daal ñoo ngi koy gën a taral libération yéene kaay mu ñu xamal lan ñu Olivier mi nga xam ne moom lañ doon tuumal ne da doon tëddee xale yi ci centre formation bu Dakar Sacré-Cœur am na ñeneen ñetti ni daat nañuy génn wax ne daan nañ leen di def musiba ma ba kumba yéenekaay gi di enquête ñu fekk fa Abdoulaye Wilane la mu xamle nag nee na lu jëm ci ñetteelu mandat bi constitution bi wax na ci lu leer nañi te nag nit kàddoom rek la am te Macky Sall wax na ci li mu ciy wax ay at yu bëree bëri yéenekaay gi di la Tribune mu ñu xamal la ñu dëgg gi kay mooy parti socialiste ñoom nag freiné nañ Macky Sall ci lu jëm ci ñetteelu mandat ma ba tey ci biir journal bi di Libération Mbaye Ndiaye nag moom ginnaaw bi mu yëkkatee kàddu def ay tojaange moom nag daan nay ngemb xale yi ngir nag ñu daal di dàq ki nga xam ne maanaam moom mooy Amadou Ba observateur mu ñu xamal naa ñu li ambades kay mooy APR jamono ji sa parcelle nag ñoom dañoo bëgg a dàq Ba ni mu gën a ndax nag ñoom dañoo jàpp ne daal àndam ak Macky Sall du lu dëggu yéen a kaay gi de la turbine mambay ñaa moom nag la mu xamle nee Mohamed Boun Abdallah Dionne ak Aminata Touré ak Amadou Ba ak Mbaye Ndiaye ñooñu ñëpp dañu leen a war a dàq ci parti bii di APR las yéen a kaay ñu fekk fa Moustapha Diakhaté moom nag la mu xamle nee jeeg Mbaye Ndiaye ak Baara Ndiaye loolee lépp Macky Sall ci boppam moo nekk ci ginnaawa yéen a kaay di sunu làmb ñu xëy fekk fa Balla Gaye numéro 2 moom nag muy nett nettali fukki at ak juróom yi mu def ci làmb ji li ko ci neex ak li ko ci naqari stade yéen a kaay mu ñu xamal naan ñu Ismaïla Sarr bu Watford moom nag daat nay tas Liverpool bu ma ne ndax nag Liverpool ba sampina bi commencé ba léegi nii ñoom amuñu woon défaite Ismaïla Sarr nag moo leen jox seen défaite boobu yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu Ismaïla Sarr dugal dëgg gi kay mooy Angleterre jamono ji ma ngay jeex-jeexi te doomu réewum Sénégal bi maanaam moo ko yëngal Real Madrid ni ki démb moom ci classico bi doxoon digganteem ak Barcelona maanaam Barcelone dañu ko daal di maaj maajee def ko ñaari bal ci dara